tey dañ laa fekk maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant euh, di rafetlu teewaay bi di leen massa coono comme ni ngeen ko waxee di waral teewaay bi fii lenn rek la yéen ñi teew fii yéen a wax bind wala ñenn ñi ñoo wax bind ni combat bi ba léegi officiel la ko bi ñu toogee nag xool loolu gars yi yéen a ngi waxtaan seen biir de yéen a ko def. ma wax man lu ma xam mu siiw donc euh, bi ko gars yi bindee wax ko mënoon nañu sax xaar tuuti bind CNG ne ko dañu bëgg def suba face to face Siteu Papa Sow moom nangul ñu ko ñu toog ba mu des weer wala ay temps ñu dal di koy def mais pour libérer tout le monde pare ci lii dem jàll ci leneen la ñu gis ni jaadu na rafet ñu régulariser ko ñu dem jàll ci leneen loolu moo waral teewaay bi tey. ginnaaw loolu kon léegi xel mën naa dal ñu doon sikki sàkk combat bi dina du am xel dal léegi loolu na leer si bopp ñëpp lu tax moom mu lu taxoon mu yeex ji régulation mu yeex xam nga boo xoolee euh, combat bi dañ ko monté am na ay weer bi combat bi monté am leneen lu juddu muy exclusion wu Papa ci écurie Fass muy benn charte deuxième charte bi mooy pour que Papa Sow euh, mën a bëree il faut que mu am écurie pour door a mun a am licence ñu tuddee ko affiliation ak leneen ak leneen xëy na les termes ne manqueront pas à l'intérieur ah ci la ñu ñoom organiser seen assemblée général def seen PV déposer ko ministère de l'intérieur créer seen structure yàlla alhamdulilahi rabil alamin loolu lépp passé nañu ko ñu gis ni nag jaadu na ñu daal di wootee régulariser lépp dem jàll ci leneen daal loolu rek la amul leneen. ñu gis combat bi bokk na ci combat yi ci saison bi taxaw ko est-ce que taxaw lañ ko yomboon na. waaw yomboon na yomboon na parce que pour être honnête bokkul woon ci suñu plan. suñu plan Tapha la woon ak Ama Baldé ñu waxtaanoon ci ba juboo ba dara desul lu dul ju joxe avance yi am na ci journaliste yu teewoon ci kër ga côté Ama balde changé de euh, d' option ñu nangul leen ko di sant yàlla it que toujours li ñu koy ñaan rek mooy lépp lu ñuy am na doon lu gën ci ñun lu gënul ci ñun bu mu na ko jox waaw ci loolu la ñuy sax di ko ñaan te it di ko sant it ñu ngi gis ni mu ngi koy defal loolu mu indi bi loolu amee suma doomu ndey xam nga ñun dañu regroupé wu ci association nationale des promoteurs de lutte donc euh, ci la ma fàllu ne ah maa ngi doon dox Siteu Papa Sow président ndax doo ko jël ah ma rafetlu ko trop mu woo moom fàllu woo père ba ne ko jox na ma accord donc combat bi ci deux heures de temps la taxaw waaw loolu vraiment musuma taxawee combat musuma taxawal combat bu yombee noonu daal. Hmm. bi la ko Fall di jox fekkoon nu mu conclure ak ñaari ménager yi ba laa jox pour nga démarrer ko.

c'est son dada donc c'est à lui de trouver ses solutions man li ma mun rek je suis un investisseur un bailleur tu m'intéresses ma opte ci yow leneen nag li nga xam ne sa environnement la c'est à toi de le gérer officialisation combat bi amu ci benn retard lan la combat bi taxaw na ñoom li ñu warloo ak ñoom def nañu ko on passe à l'acte administratif rek amul leneen li ay formalité la rek am déet waaw non cest dire que il faut aussi que nga comprendre leen combat yu ci bari comme choc yi dañu koy monter bu ñu demee tey mënoon naa bàyyi ba làmb ji des vingt vingt et un jours ma ñëw deux semaines ku am na combat am nañu jéem ko régulariser ma ñëw régulariser ko mais j'ai vu que nii je dis bien Mbodj bind na ci keneen bind na ci pour libérer tout le monde dafay jaadu rafet ñu libérer leen yéen ñëpp waaw xamal leen ni sangam sàngam danañu bëree combat bi mu jeex man ma dem jaar def leneen daal ah. mais innovation bi pas ab indi ci lamb parce que keroog dégg nañ nga wax ko ci première face à face je pense que comme genre wàllu open presse beeg. yeneen affaire yi nga xamante na bëgg nga ko indiwaat ci événement bi ci pour waaw liñ wax ci ñun programme du ma waxan benn ñaar awma jot bi te it tollootuma duma nit ku ñuy defloo déedéet ça c'est pas apte lu ma la wax lu ma gëm la lu may def lu ma man la lu dëgg innovation lépp man Abdou mënuma def lu mësta am la promoteur yëpp jaar nañu fi parce que nag dafay jaadu tout euh, euh, ñu xam ni nag làmb làmb rek la mais li ma la wax nit dina ci am dana ci am am na sax yeneen yoo xam ne danañ ko ci yokk bu dee yaa ngi këyit gi ma la joxoon boo ko téye nga jël ko comme ligne de conduite comme sa conducteur comme ni ngeen koy waxee ah di nga gis yeneen yoo xam ne dina ci greffe bi. non dama leen waxoon bi ñu dajee ci hôtel bi que amul luy gratis xam nga loolu euh, wax la marketing la c'est-à-dire que aujourd'hui man je avec des partenaire ñoo may jàppale pour mu tëgg làmb euh, am na noo xam ne bu ma ko organiser làmb bi mën ngeen ci gis sax lenn loo xam ne du leen neex yéen mooy que ni tey bu ma jëloon cité Papa Sow def ko fii ñu ngi fii stade Léopold Sédar Senghor fu waay neex daal di daw dugg mais finalement c'est moi-même qui crée l'insécurité dans cette affaire-là donc dafay jaadu ci li nga xam ne man ci laa nekk di ci yëngu ma créer ay astuce astuce bi moom mooy lan ku nekk yéen a ngi ak seen smartphone yéen a ngi ak seen ay ordinateur moom ngeen di liggéeyee day jaadu ngeen télécharger Agricash boo léegi bu ñu bëggee jëflante ci problème mu xaalis wala ngeen bëgg ko jëflante ak keneen vu que sumay sponsor lañ mais ma def ko gratis loolu boo ko indee nga téléchargé ko nga daal di dugg sinon boo bëggee bàyyi Marius Ndiaye ah pënd beeg ma Samba ak ma Demba ku départ daal di ñëw dugg finalement c'est le promoteur même ki est le metre de l'insécurité dans cette affaire là donc am na yeneen du benn bii rek ñu ngi jëmaat ci beneen ndaje boo xam ne c'est beaucoup plus classique ci beneen hôtel lay doon diine lay doon wala leneen lay doon ñu amaat ci beneen taxawaay beneen mbir am na it ay mbir yoo xam ne dina am ci ko ñu Siteu am ci ko ñu Papa Sow yaa ngi dégg wax baax moo ma fi tax a teew xoolal lu ñuy yabe doomu aadama duma ko may nit lu ma moom it danaa ko jël waaw man gaynde la lu ma moom bu dee fit rek yàlla may na ma ko dama koy wekki kon CNG moo génn këyit ne bala ñoo def dara dafa bëgg ñu nekk dans les rangs en tant que président des promoteurs je dois être parmi les premiers qui seront dans les loolu moo waral suma teewaay tey parce que il faut pas prêter le flanc ñoom c'est une instance dirigeante mais sama ay moromi nawle lañ ndax dam leen war a may bu ëllëgee bu ñu toogee ci kanamu taabal yi bu ñu waxee man du ma wax réew yi ku wax ma wax dégg nga ma loolu rek moo ko waral joxante nañu cër trop on s'autocomplète mais suñu génnee seen ay directives dafay jaadu nekk yoon ñun ñu respecté ko malgré qu'on naa des rapport yu baax yu am solo mais nag nañ leen respecté charte yi CNG teg waaw bala ñu fi jógee ñu jox manager bu nekk convocation suba ñu xam mbër mu nekk suba ban heure lay ñëw lan la Pape moment la boo xam ni euh, c'est un show c'est un méga show il y la présence de Pape Diouf il y aura Ngaaka Blindé il y aura Diamant Express il y les troupes folkloriques et autres là du dëgg il y sera une tribune aussi pour mes partenaires de délivrer leur message ça sera aussi une tribune pour Pape Abdou Fall yow lii lan la naar yi nag sa mbokku naar yi. vous avez dit l'autre jour que da ngeen di taxé naan mbër yi dañuy sème le désordre mais vous êtes les premiers à semer le désordre. allez on passe. non dama ko doon kii rek. xam nga comme léeg-léeg da ngeen ñu koy jam léeg-léeg day jaadu. Ah, man moom noonu waaw donc euh, day jaadu mu doon tribune Pape Abdou Fall aussi commencé woon nañu ci A. xëy na doon jëm Z xëy na defagum nañu A B C ça sera l'occasion de vous dire que ni F ak li ci tegu lii ak lii lay doon date sàngam lay doon nii lañ ko bëgg defee ak nii lañ koy defe waaw loolu la. Euh, lu may laaj mooy euh, gis nañu ñaari mbir ñoom ñaari ñëpp ku ci mel ni Siteu. waaw dafa am mbooloo macha allah ñu gis ne arène nationale bi ñu bari ñu ngi ndax gis nañu arène ñu bëri ñu ngi ni ñu comme tabax bi suuf gi comme cumkaay yu bëri ñu waaw ni ñuy jegante woo noonu waaw te gis nañu combat bi passé violence bi est-ce que ak tamit matu combat ban passé violence combat si euh, Alioune ak ñàkk jariñu waaw waaw est tamit yow yaa ngi kii yaa ngi bàyyi xel loolu ak tamit li nga xam te moom mooy matukaay bi service de bi yooyu noonu yaa ngi ci bàyyi xel eh, ñun duñu ay li ñuy def de dégg nga nous sommes pas des amateurs ci suñu ay domaine d'activité du tey la ñuy door a organiser grosse affiche waaw Modou Lo Gris Bordeaux jaar na fi Modou Lo Lac de Guiers Siteu këca guy gi ah ñaa Niang Lac de Guiers euh, Boy Niang guy gi jaar na fi ah Boy euh, guy Garga jaar na fi loolu lépp donc ñun bu ñuy jóg ñuy jóg avec la grosse artillerie voilà. ñu bëree ngi laaj sa mbokku naar yi ndax dina ñëw. mooy xorom si. bu mooy ndax géej gi am ndox yow. Ah. waaw. Pape Dou gannaaw bi ñu la nuyoo Agrica suba. waaw nga war kaa expérimenté. supporters yi ñëw kenn ku ci indi sa téléphone ñu télécharge nga am possibilité dugg ci stade bi. alors mbooloo moomu buñ fa dajee est-ce que dana gaaw gaaw boobu ba permettre nit ñi mën a feesal stade bi. bon xam nga formule la. du hmm. dëgg il faut comprendre les choses ah. c'est un système. de filtrage oui. qui sera mise en exergue euh, am na ñu jot a téléchargé am na ñoo xam ni waa Agricash dinañ taxaw foofu boo ñëwee ñu téléchargé la nga daal di ñëw dugg donc euh, dañuy xool y aura la police y de la sécurité privée ñu xool les façons nous sommes suffisamment outillés pour voir et analyser en profondeur euh, contexte bi li mu laaj. kon supporter supporter yi lay seetaan. supporter Papa Sow yi supporter Cité yi bu ñu ñëwee nañu indaale seen téléphone sans connexion wala ñu jëndaale seen connexion. connexion ba dañ ko fay fekk gratis. man du ma je je fais pas à moitié déedéet je fais pas à moitié. y aura de celle gratis. boo xam ni yora des équipes yoo xam ni dañuy ñëw toog. téléchargement rek mooy liggéey da ngay ñëw joxe sa téléphone ñu télécharger la nga dem jaar dugg dem sa yoon. tey làmb jee noonu lay demee c'est-à-dire que je vais me à chaque fois que je me déplace avec Agricash je me déplace avec de l'internet gratis du ma mës a tooñ baax na ayca léegi nag yàlla yàlla dooli jàmm bu neexee yàlla à onze heures dinañu ubbi buntu yi onze heures dinañu ubbi buntu yi service yi dinañ fa nekk ñu jàppalante Siteu na mobiliser wu ñëw Papa Sow mobiliser wu amateur yi nañu mobiliser wu képp kuy dund làmb na ñëw ñu jox làmb beneen visage nañu bàyyi làmb deena làmb ñaar moo am ci àdduna on veut on peut pas du dëkk bëgg naa dama mën naa bëgg naa mënuma faut les gens ñu comprendrante nañu ñaan nañ yàlla ubbi xéewal yi promoteur yëpp am lu ñu daldi tëggee làmb yi ñu def mais communiquons positivement sur la lutte waaw mais bu ñuy naan làmb dee na lan lay dee làmb yaa ngi am dimanche ak ajjuma samedi dimanche waaw gis naa agricat booy nii la de boo kii doo dugg amul fale ngeen bàyyi nag événement jàmbur yi ngeen di jàpp di ko def gratis te presse en ligne bi li ma leen wax moom laa wuyoo. kontaan nga si ñoom ci yéen. parce que non defal ndànk non dañuy waxtaan. da ngeen ma interroger et je parle du sérieux damay ne li ngeen di def mooy da ngeen di jël suñu événement jël ko def mise en ligne bi yéen ak seen i patron dem lekk suñu ay koppar. te taxawulul leen làmb moomu leen làmb cela veut dire que ni jaaduwut xanaa sax ngeen ñëw ci promoteur bi jël benn bandeau def ko ci seen site yi. jàppale ko bannière mais am na ñu koy def quand même. non xaaral damay ne dama leen wax benn mbir ëpp leen ma fulla ëpp leen ma fayda da ngeen di liggéey damay liggéey dégg nga à la sortie de cette rencontre là fii ci CNG laa leen ko waxee leer na ci seen bopp ku jël ci suma événement def ko direct sans mon man je le gère pas tu vas gérer ça avec d'autres mais jàppale leen nit ñi jàppale leen mais ngeen bëgg a nekk fi am na loo xam ne sax boo leen koy lekk du rees de seet leen li ngeen di def su ma ay gaan ngeen